الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu feetu TV ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak programme Kossy TV gannaaw bu xalifa saahibul faydatu tijaaniya taxawalee pose première pierre bii nga xamante ne nii lenn ci ay taalibeem ñoo am sababu sansawat xarkana mu Medina Baye rawatina ci hôpital bi samedi 7 mai 2022 gis ngeen melokaan bi mu nekk fa yéene leen soppiwaat ko ba méngoo ak jamono daayira jamiyatu daxwa wal ixsaan si lëkkaloo ak liggéeyal Mawlana Cheikhul Islam Aj Ibrahima Niass Baye kenn si kilifa yi Medina Baye waaye kenn si kilifa yi nga xamante ne ñu ngi liggéey lu am solo si pays Mawlana Cheikhul Islam Aj Ibrahima Niass Baye si Abdourahmane Ndaw Al Karim ki nga xamante ne waxtu nekk rek xitma ak liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima moo nekk yitteem bokk si bi la daayira waaye bokk tamit si njiit yi nga xamante ne nii fas yéene taxawee bi la liggéey sëriñ bi gannaaw fii nii yan kàddu rek moom nga mën am pour jox ko taalibe Baye si liggéey bi la ngeen sum alhamdulillah wa salaatu wa salaamu alhamdulillah ñu ngi sant yalla di julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam di gërëm suñ sëriñ Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima di wax ne kaddu yi de du guddu waaw ko am euh, fa ngay fajo parce que ku ne xam na ni ku wopp do mën dara jaamu yalla bu sel bu set sax do ko mën donc ñu dajelo jël hôpital bi dispensaire bi bëgg ko def mu mu mengo ak jamono khalif bi ñew jox ñu ci ndigal ci ak ñun loolu bu boobaa dañuy sant yàlla rek ci loolu di wax ne sant yàlla rek la nañoo bëgg rek ngeen ñaanal ñu yàlla def ñu dem ba nga xam ne dañ fiy dajewaat daje bu mel nii jël caabi yi jébbal ko xalif bi suñuy doom yi mën di faju normalement comme il sa doit ñu ngi sant yàlla di gërëm ñëpp di gërëm seen teewaay yéen presse bi yéen yëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm Cheikh Baye Adi mii nga xam ni moom laa dendal di gërëm njabootu Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass di di di wax di di wax tamit ni euh, xalifa bi comme ci moom ngeen ma laaj balaa ngeen a wax beneen question dinaa wax ne xalifa la boo xam ne euh, liggéey rek a ko tax a jóg tabax rek a ko tax a jóg li nekk ci boppam yëpp bés buñ ko réaliser woon te itam man gëm naa ni am nay ful la réaliser ko

Lini bo 625 mètres carrés la entrepreneur bi mu fi di IGM IGM mu ngi fi Ñom dinañ euh, tambali dès lundi démolition bi. buñ tambalé démolition bi Inshallah ñu fondation bi bu boba am nañ yaakar ni fi ak un an gros œuvre yi dina pare. gros œuvre yi dina pare fi ak un an. gros œuvre yi pour 625 mètres carrés metti wul 60 millions la dina am 17 pièces ci biir 17 pièces dina ko am. dina am ñaari óol ñetteelu óol bi muy am boobu ambulance yi ñoo cay dugg euh, ci suuf maternité bi moo fay nekk ci kaw dispensaire bi moo fay nekk képp ku feebar dina am ben escalier boo xam ne foofu ngay jaaree rek dem directement ci dispensaire bi képp kuy wasin ci suuf ngay ñëw rek na saraax bu boobaa boo duggee ci benn hall dugg ci salle d'accouchement boo xam ne am na espace boo xam ne quatre-vingts mètres carrés la di nga fa mën accoucher matériel yu mucc ayib nekk ca su boobaa doo ñàkk sa bakkan comme ni nga xam ni moom lay amee ci yeneen xew-xew yi yàlla nañ ci yàlla musal. waa Kossy TV am liggéey fay du baay bi Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci barxama ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal